fàttaliku lu bokku ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla ande kenn ku dib julit mënu ko bañ. yoon wu ñuy wara jaar ba man a gañe seigne touba gisaguma ko setlo ko. bokki jullit yi gannaaw bu ñu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonentam ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñëpp tey baalu xaq ñëpp yàlla nañu yàlla boole jëkkal. di dénk suñu bopp di dénk képp ku nangu ku dénk ñu gën a fab suñu pas-pas suñuy wax suñuy jëf teg ko ci taqwallah bu nuy wujj suñu borom ñun ñëpp yàlla nu yàlla dimbali ñu doon ay dëgg-dëgg jullit jum dëggu ci ñoom tomb bi ñuy fàttali te dañ koy fàttali jëmmi nit ki ci boppam ndax bi nu yàlla bindee dindi leneen ak yeneen daf ñu caa beral loxo wax nag ñun ñu dégg jëf nañu gis def na yit joxoñ ko ñu di ko gis saa su nekk waaye ñun ñi nga xam ne ñoo ci ay doomu aadama ba mu fi bëggee yónnee fii ci kaw suuf si dafa mel ne ku teg ab kor ab layoon wax keneen wax mu wax keneen wax ba mu yay leen wa id xala rabuka lil malaikati inni jaailun fi l ardi xalifa la ca topp topp mu xamal leen ne li tax ma di ko fa yóbbu daa mën a xam lu ngeen dul xam yéen doomu aadama day xam bareen di déwén du ca fàtte dara ak la ko gën a yàgg te ñeneen ñu baree bari ñu ci des lu weesu weesu la nga xamni la ca gannaaw ci lay waajale li ci kanam moom nit am na ñeneen ñu ci bokkal nag ñoo xam yàlla nee na li tax mu ñu mooy ñu di ko jaamu fii ci kaw suuf si soxlawut ci ñun dara waaye ñenn ña nag bu amee ñu leen di gis ñëpp di leen gis wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liyabudu mu xamal nu ne yéen nit ñi du leen dal bax nii ngeen mel kenn melu ko lii ngeen am kenn amu ko li ngeen xam kenn du ko xam ba noppi ngeen nuur ci lii ngeen nuur yaa ayyuha insaanu maa garraka bi rabbikal karim dellu wax ne moom nii nu mel moom la soxla te xool na ko xoolaat ba mel ni mu bëgg laqad xalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim daal ñuy fab nag teg ñu ca kaw ñëpp loolu moo tudd teraanga joo xam ne duñ tàggooteeg moom mukk wala xadd karramna bani aadam euh, mu mel ne dañoo tëye dégg mu ne li tax ma ne leen dama leen a teral defal naa leen lu ma defal ñu bari waaye defal naa leen lu ma defarut ñu bari am na foo xam ne fa tolloo waaye ñun nag dañ def nuñ ca seppat teg ñu fële ca kaw muy ak nite moo ne kenn ku ci nekk ci yeneen yi ma tuddul ma ngay def la koy tax a nuru loola la koy tax a nuru saa su ne ma nga ca kenn ku ne xam na ne ci nawet bii rek da ngeen gis ne ci yii dinaaw la seeni maam ak maamaat nekkoon saa bu nawet jotee ba amatuñ ñu làqu dañ dem sàkk ci ñaxum sunu borom mii def ci ay tàgg lu tax bu noor bee tàgg du am mën naa am fi ñu làqatu naa am fi ñu bëgg a def lañ bëgg a def kon la seeni maam nekkoon ba léegi ña nga seen tànk benn jëm ci lu dul leen yàlla taxaw mooy fi suñu borom di wax ne ñun ñëpp bi ñuy ñëw àdduna xamuñu dara indiwuñu dara yoruñu dara ku fa indaaliwu dara xamu fi dara nag mënu fi am dara defal ñu ñuy ràññee ci ak dégg ab néeg bu fa nangami fukki nit nekkee boo leen xamee ñoom ñëpp ku ca ree sax danga ko xàmmee waxuma laa nag muy wax nit dana dem bay xàmmee jooyi doomam lu fa liir ya bari bari lu fa gone yi bari bari mën na caa ràññee jooyi doomam muy dégg koo xam ne gi day ràññee defal ñu it ñu mën a ràññee melokaan yi wérgo yi mooy couleur yi bu baax a baax a baax ba moo tax sax nee nañ waa jaba jaay wuute ga moo tax waa jaba di jaay ku ne ñëw tànn benn waaye defal ñu nag luñ bëgg mokkal man nañ koo mokkal ci suñu ci suñu xel luñ bëgg a man mën nañ koo liggéey ci xel mi jàpp ko cër yi def nee nag ba mu ñu koy defal am na ñoo xam ne seen liggéey weesuwul for yi lekk rekk naam tëdd nelaw mu rees nga jógaat kese kon faw mu am lu ñu war a wutale laallakum tashkuruun laallakum ashukru nag ni ko sëñ bu mag bi leerale woon mooy da wutal yàlla aw lay wum la doolee da ngay yàlla lay wum la doolee ñun ñi nga xam ne lenn si ñun am nañu dégg goo xam ne dara sikku lu mbir sew sew bu ne kungu ñu mën koo dégg lu mbir sew sew buñ ko xoolee mën koo gis lu mbir dëgër dëgër bu ñu ko xëccee mën naa ñëw ndax am nañ ay yoxo fu ñu bëgg a dem suñuy tànk mën ñu fa yóbbu am na si ñun ñoo xam ne loolu gàllan yàlla am nañ ci gàllankoor boo xam ne suñu borom moo leen euh, am na si ñooñ dégguñu am na su ñoo xam ne gisuñu am na ñoo xam ne mënuñoo laal am na ñoo dox ñii ci yaram bi laa tudd léegi am na ñoo xam ne ci seenom xel la nekk ba soo tàmbalee wax ak ñoom da nga xam ne lii ñuy wax wax ju na suwut du kalaam kalaamuhum لفظ مركب مفيد بالقصد نحو ان هذا لسعيد موي كورل بو ياتو ياتو في سون بير بو ني واني نيت ني فاو ني بولا لين سي وايي موني دا فا ام لو ني الاسلام قال سي سون كاو سون ديغنتي ات نو او يوني بو خا ني نيت ني كاي خلاتي ام نا لو ني قال سون ديغنتي ات نيوم دونت خلات ني موم سا جنا مناشاكو waye lañu sañari di sant mom bu sopp ko Euh, bu ñu ci jëlee misaal ci baal gu leen yàlla baal xel ñu war a baal xel jëmba ngi nii yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na teqantalal mbooloo mu jóge woon fu sori di ko laaj seen asakay alal kon bari la nag moom mii nag gisut dafa toog yonent bi la fa xam mu di ko woo yenti bi geesu ko ne ko baal ma tuuti ma àggale yàlla ne ko ah lu ko wute léegi ñii ba mën wax ak mom bëy la kat waaye jur gi bok te mo ne bëy xar lañuy bolé wañ ni génne asak ñoom ñëpp abasa wa tawalla an jaahu al ama wa ma yudrika laallahu yazakka wa yazakka fa tanfau dikra amma man istaghna ki di wax lu jëm ci asaka nga jox ko nopp tuuti ba naa ko maye ma foo ko teg mu ne ko fenn afuka ya rab jëmm jooju tudd Abdullahi ibn Ummi Maktum saa bu ma saan ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw loolu maanaam li ma bëgg a wax mooy koo xam ne am na gàllankooru gis tax na ab aaya wàcc ci nuñ ko def fi barab gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam di wax lu tax nga wan nga ñii doo wax ak kii ku dem fu bari da nga fa fekk dama soxla diw ñu ne ko muñal tuuti di bàyyi gaay ñuy jàll di bàyyi gaay ñuy jàll ba kenn mën naa man moom ci boppam mën naa xàmmee ci xàmmee gi may wax nii baatu diw bu fay wax mu ne ko diw boobu ba tey ngi fi mu jàllale ko waaye su demee duñ ko may mu wax li bëgg wax suñ xamee ne yitte ko fa indi duñ bàyyi mu wax ana kuñ fay bàyyi muy wax kuy théâtre rek théâtre rek di wax lu ñor di wax lu ñurul du du kañ fay fekk du doon ca kañ fay fekk ñaare waaye ñi koy wër ñoo koy gëm looloo la rek ñi ñoo war a agsi ñi wëruñu la agsi te ñëpp war a agsi tax na ku am gàllankoor ci gis tax na yonent bi sallallahu alayhi moom wax ju leer ñu nakas dama yàlla jëkkër ci kàddu bi moom moom bu masaan seen gannaaw bi lu mu jamp jamp da koy xëcc نكو مرحبا بمن عاقبني ربي يوم تخون يالا ديما جاج نيول بو في اندوسل سي من دالكو يخج بوكو كورتكو فونكو نكو لو ييتي تاي بن واخو ييتي ولا مو دا نيول دي سيارج كون بوك رويو كاي غي نونو بو خامني دو جيم يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا واجال waye daf ñu wone sa suñu suñu fi yagge man ngeena gis lu ne mel ngeen dundé ko ni mom yonent bi wuutal na nee na ko dem leen abdullah ibn maktum jiite leen ñaar yoon doon na fa yor doon na fa yor yoroon na fa daara ju mag di jàngal alquran xanaa kooku kon du ci li ñuy gis la gisut nii rek waaye liñ man ba man na sax loo xam ne bari ñu mënuñu ko moo tax nag am wàll wu réeree ci suñu biir moom moomu di abdullah ibn maktum am xare bopp xare xaadisiya yoroon na aw raaya te ku ne xam na ne ki yor raaya bi ñaare moom la ñu gën a dàkk gannaaw ñi gis ñuy moytu ñoom ñoo mën a gis kay diir ngi di ko moytu sakkantuma koo xam ne gis ba neexul mu yoroo raaya far koo xam ma nga ca kanam bu ma noonu la gaa yi man wóor na ma dana def lu ëpp lu gaa yi def te moon yàlla wàccaloon na ko ñu mel ni moom ndax nee na laysa ala al ama xarajun wala ala al araj xarajun wala ala al marid xaraj mooy ñi nga xam ne seen bis neexut wala ñu am laago ci seen yaram saa buy wootee yu mel nii wàcc nañ leen ko seen ñàkk dem yàlla du leen ko topp dara teewul nag ku ci topp yàlla na ko ñëpp di toppe jaare ko ci njàngale yeneen ci bu ëllëgee dana dugg aljana ña fa ñëpp di duggee waaye ku ci wan gannaaw njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi jëlee ci suñu boroom it ndax daa am gàllankoor fa ko fa yàlla yàlla ñëpp la yemale xamul xamul ko am gàllankoor ku am laago ku ko am waaye noonu la ko ñàkk ràññale tam ci pas-pas bi ak jëflante gi nit ñi war a jëflante ak ñoom am na koog ay gëtam da neexutoon bët yi daa muuru woon jamono mu bëgg ko def ngàntul dem jumaa ñëw ne ko ndax mën na maa toog ba ñuy julli ci àjjuma mu ne ko ndax la mu ne ko ay gëtam daa neexul mu ne ko am nga amoo ko la andi mu ne déedéet boo làmbatoo kenn du la indi mu ne déedéet bu doon suñ jamono dañ naan ndax amoo njëgu taxi mu ne awma amoo njëgu tata déedéet ak dëkk yi leneen di yóbbu ñëpp amoo kenn ku la yóbbu amuloo passé amuloo dugg ndax dara doxul dëkk bi am na ndox mu ne ko waaw waaw mu ne ko taxul ajjuma wàcc la meneen pexe mën naa boo teelee fajaru ne ku may yóbbu ci balaa nit ñi xëy da nga am ku la yóbbu ci wàcc loolu samay wax maa ko ci dolli waaye yonent bi fa mu yemoon dafa ne déedéet ni war a ñëpp la la war a kon boog ab kuréel nga ci suñu boo xam ne bii dañ leen a war a baal xel ni ñuy baale xel ñi nga xam ne dara sikku ci seenu yaram moo ne am na si ñoo xam ne seen yaram ba dara sikku ca waaye seen xol ya dara rafetu ca maanaam laa ko xol lañ am laa ko xol yàlla ñu ci yàlla mooy xol boo xam ne bii waaraate mënu caa dugg xupp mënu caa dugg lu neex rek ca mën a dugg boobu xol moo gën a laago sax mu mu cër yu laagoo ko gën fuuf ndax xol ba ca la di atte ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa ne ku am gàllankooru yaram ak fu ko mën a amee teewul mu mën a def li gaa yi def am ku ne ca tonnet ne ko ah waaw ku mënut li man war a def li nu muy demee mu ne noo yëg doomu aadama gu nekk nit mën na caa def lu baax mu yóbbalee ko ko ëllëg euh, ndax koo kii am gàllankoor su saxoo subhanallah alhamdulilah allahu akbar la ilaha illallah ba làmmi ñoom miin ko ba nga xam buy naaw sax boo ko yee mu di ko wax ma ngay liggéey waaye koo xam ne itam yàlla da koo teg Euh, gàllankoor yooyu te fu mu ngi digli lu baax di tere ab safaan ma ngi ca liggéey bi waaye koo xam ne mi ngi gis ni xull di xool yët bu tombee si yoon wi loo xam ne mën naa gàllankoor kenn ku munta gise bu ko toppalee ma ca liggéey ba waaye koo xam ne day laajte fu mu jëm te xamu ko xamagu ko mu tegtal ko benn mu ne ko jaaral ni jaar ne wala kaay ma wan la koy kooku ma ca liggéey ba kon lu baax dafa bari fu mu nekk ku man ci aw yaramam man na ko ku mënut ci aw yaramam man na waaye bokk yi ki nga xam ne moo am lu bari la waaye su ma ki nga xam ne dëgg-dëgg moom moo am laabo mooy koo xam ne yàlla xéewal na ko lim xéewal jaam ñépp xel ma dara sikku ca gët ya dara sikku ca nopp ya dara sikku ca yoxo ya dara sikku ca tànk ya dara sikku ca ba noppi mu mel ne jur gi jur lu luy sooy liggéey junj naa ko léegi wuti luñ lek am ko lek ko ak nuñ ko meuna amal leg leg ak jur lek de xamu ci dara lek rek la bëgg fofu ñu ñi fa rek waye ñoo ñu lek rek lañu ñuy bu ñu lek baax bu ñu lekkee ba do waxuma suur waye rek lañu def waxuma rek yam ci waye ñok ñokal su boba nelaw daal di koy nuyu te dana ko fay. ndax tayal moo koy wéttali su boobaa nelaw na ko yo xoos bu nit ñëy jaamu yàlla ma ngay nelaw bu ñuy salaatu ma ngay nelaw bu ñuy nodd nodd ko njëkk ma ngay nelaw bu ñuy julli ma ngay nelaw bu xëyee faxas ay loxoom faxas ay tànkam xëyaat ni jur gi ñooñu nag yàlla nee na woon ulaika humul gaafiluun wa laqad dara'na li jahannama kathiran min al jinni wal ins bu ëllëgee dana duy sawara ba mu fees dell ak lu bari ci aw nit ak jinne lu ko waral mooy dañoo laaboo lu ko waral mooy lahum qulubun laa yafqahuuna biha yàlla joxoon na leen xel mu mat sëkk ñu am xelum wut am xelum jëflante mën a jàng ba am xelum mën a jàpp ba mën a mokkal ba mën a def li leen yàlla sant ñu lànk wa lahum aayunun laa yubsiruuna biha yàlla wan na leen ay kii maanaam ba tey te alxuraan moo ca raw jàng nañ ci alxuraan ba tey aqimu salaata wa atu ñu lànk wala hum aadaanu laa yasmauna biha wax tey jamono ji ñu toll nag moo gën a jafee layoo ak suñu borom ëllëg kenn du ne mosuma ko dégg wala mosuma dégg ku koo laaj mu wax la lahum aadaanu laa lu ne day romb yàlla rek mu ne nag ulaa'ika kal an'aam dañoo mel ne jur gii bal hum adal jur gi leen ëpp njariñ ndax jur gi tabaski dina ñëw sa xel dem ca nit am xel am xelam dem ca te kooku may wax noonu mel ni jur gi dara du xew am xel dem ca kenn mënu ko jariñoo ci lenn bal hum adal ulaa'ika humul gaafiluun yàlla ñu yàlla mos a ci xafla kon boog nañu xam ne yàlla teral na jox ba jox na loo xam sax laaje guñ ko ko limni joxe jox buñ ko don doon da danañ fa yag lool wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu nicmat allahi la tuhsuha wa ya innal insana amna na fu mu waxee insana la zalumun kafar sa su nek lañ koy tare lay def sa su nek lañ koy couper du ko gëm da koy wayefal ak lay yu wayefa wayefa wayefa wayefa waye waaye nga jëm mom du terloo ko kese waaye war nañ caa ter ter jaamoo ko yàlla waaye teral ca it ñi nga xam ne suñuy moroomi jaam lañ te mënewuñ ko nañ ko mënee na noonu yàlla yàlla defal dëgg topp te musul seytaan nekk pexem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib julit mënu ko bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma Shalom.